tey dañ ñoo yëgal tiis boo xam ni bu metti la ba ñuy tàmbali CRD spécial bi ñu tàgge ñu maanaam un grand homme d'État muy le président Ousmane Tanor muy non seulement un grand commis waaye homme d'État la nit ku baax kon la euh, suñu borom nag kenn du xëccoog moom euh, moom mooy def lu ko neex

waaye finalement dañ ne nañ ko continuer euh, parce que peut-être moom mooy da koy sax nangu en réalité donc mënuñ def loolu ñaanal ko donc di jàll Sénégal yëpp.